mbokk jullit yi nga xam ne yéen ak ñuy déglu yu góor yeeg yu jigéen ñi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu àq di leen bal àq di amaat mbégteeg kontaan te di ñëwaat ak yéen suñu ñetteelu fan ci weeru koor di waxtaan ak yéen wala di fàttalikonte ak yéen si jigéen ak weeru koor tey ñu ngi ñëwaat ba léegi ci eh, jigéen ak set ci weeru koor ba tey ndax xam ngeen ni foofu dafa bari ay ruq-ruqaat yoo xam ne dañu fa nekk moo tax ñu xaw a yàgg ci thème boobu tey ñu ngi ñëwaat ak yéen ci jigéen bi nga xam ni diiran weeru koor bi dafay am ay deret yu ndaw yuy génn ci moom léeg-léeg am jigéen yoo xam ne dañuy feebar feebar bi nag mën na nekk li ñuy tuddee istihaba istihaba mooy jigéen bi nga xamante ne fu mu toll dafay gis deret te bokkut ak deretu règle bokkut ak deretu loolu deretu feebar la wala jigéen bi nga xam ne dafay def planning ndax xam ngeen ne jigéen bu fekkee dafay def planning familial règle dootul normal datam da fay passer lélé nga gis ko xamni 7 jours laan gis règle waye bi mu ko commencé def plan da ngay dégg mën la légui 15 jours la koy gis am ño xamni fuñu tollu rek presque dérèt bu ndaw fay génn si ñoom ñooñu lan moy seen atté ci wéru koor bi bu féké jigen bi nga xamni mom ay dérèt yu ndaw moy génn ci mom mu nekk wéru koor bi dira wéru koor bi yépp da fay wor li nga xamanteni mom moy wéru koor bi dérèt bobu daf koy japp mu nekk rek mu baña nekk dara daf koy jàpp mu baña nekk dara mu baña nekk comme àttee règle ndax léeg-léeg am na deret yoo xam ne euh, biñ ko laajee yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ñaq la rek ñaq la rek wala ay salte yu mel noonu mu ne Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu moom it laajoon nañ ko ci deret yooyu nga xam ni dafay toog par tuuti xaw a mel lu tax jigéen bi nekkee ko durant weeru koor bi mu ne loolu nekkul règle nekkul règle loolu doo ko jàppee muy dara su boobaa yow da ngay woor li nga xam ni moom mooy weeru koor bi bu fekkee comme kiy def planning la nag bu fekkente ni yow juróomi fan nga daan gis règle dangay compter juróomi fan yooyu su paasee deret bi génnaat nga xam ne lii du deretu règle waaye deretu planning bi la bu fekkee juróomi fan yooyu mat na dangay dem sangu nga daal di julli di woor chaque julli nag da nga koy jàppal changer protège bi nga xam ne moom nga defoon te boo xoolee sax da ngay gis ni deretu règle dafa xaw a uuteeg deretu planning bokkuñu nuroowuñu bokkuñu sax xet deretu règle moo gën a foor moo gën a far mo gëna ñuul day xawa melni lu rouge bordeaux ba paré am xet da fay a am xet go xamni ne dafa sëcc waaw buy da fay nekk lo xamni da fay nugg waye bu fekke deretu planning bi nak da ngay gis da fay melni xar buñ ko reyee xar buñ ko reyee xam nga deretu xar mo gëna oyof da ngay gis deret bi day melni ni dafa am dañ ko njar ak ndox deret planning bi ñaare lool non lay mel da ngay gis mu melni ni dafa nekk deret bu oyof te du am xet comme deret bee ni nga xamanteni non lay amé xet suñ ko mënee xàmmee moom moo gën suñ ko mënta xàmmee tamit jigéen bi na jàpp ni rek su fekkee juróomi fan la daan gis règle bu juróomi fan yi matee mu xam ni moom foofu la règle mu yem li ci des kon deretu feebar la wala deretu planning boobu su ko defee day sangu daal di continuer di julli di woor comme ni nga xamante ni noonu la ko daan defee bu fekkente ni tamit euh, deret bi dafa ñëw ba continuer comme niñ ko waxee woon passé 15 jours di dem su boba nak da fay baye da fay eh, def comme niñu ñu sank rek bu fekke deret bi amna comme lim daan gis règle rek loolu lay loolu lay konté comme lim daan gis règle su ko defé su boba heure bobu lay xol bu dat bobu joté rek mu daal di sangu continuer gis règle mu dess nak jigen bi nga xamanteni ni nii léeg-léeg daf ñuy dikkal ñun jigen ni tay ji tay la 5 ci weer bi bi maanaa légui la 5 bu jëd da nga daan gis règle legi yow bul dag sa koor mukk te gisagoo deret ndax lele am ñu mu dal ci ñun nga ne a ah, tay sama jour règle la nga xey sa naq bi diis sa bir di metti da ngay gis ño xamni sa jaral na leen bañ di xaar règle bi ñew su boba nak mom da ngay def ni nga daan def ba nga ba nga ba nga sété da ngay def sa xëd bu dee da nga daan xëd yene daa di wor fek deret bi gennul waro dag koor gi koor bi du deret bi bu ñewon ba ci naq bi te gennul nga yek sa naq diis na nga yëg ni sa biir mi ngi metti di sedd comme ni ngay boy waji gis règle mais comme deret bi gennagul rek yow koor gi doko dag da ngay xaar ba deret bi genn ngay doora gis ngay doora dag koor gogu kon jigen bi nga xamni ni yëg na ni règle bi mi ngi waji ñew te yegg ségul bu mu dag kooram te deret bi ñewul sa bu deret bi ñewé nak ba nga gis ko ba nga xamni ne bi ñew na bu doon sax dafa ñew euh ben wax ben minute avant ñuy wor comme niñ ko waxé won ci suñu dars bu ñëk koor gi dafay dagg bu fekkee tamit dañoo dog ba pare muy door a génn koor gi dafay nekk loo xamante ni <coughs> lu baax la mu des jigéen bi nga xamante ni nag nee dafa gis comme dafay gis deret te xamul deret bi deretu règle la wala du deretu règle léeg-léeg nga gis jigéen comme tey jii euh, sama tey laa waroon a gis règle ma jikki-jikki gis tuuti deret tuuti loo xamante ni benn toq la bi maanaa benn toq rek la tey sama bisu règle la mën naa ko jàpp mu nekk règle léeg-léeg jigéen ñi bu ñuy gis règle jour bu njëkk bi day commencé tuuti wala mu mel ni lu marron far nga ba ko gisee nga xam ne kon règle bi mi ngi ñëw su boobaa nga bàyyi waaye bu fekkente ne nag loolu dafa continuer ay fan te wàccut loolu bu boobaa doo ko jàpp muy dara bu fekkente ni nag daf laa leer ni lii moom deretu règle la ni waaye dafa bariwut su boobaa da nga koy jàppee comme deretu règle doo si julli doo ci woor ba keroog muy dagg ki nga xamne gisna tamit gis na gis na règle ci beccu weeru koor mën na togg lu ko neex lek lu ko neex waye nak buñu sañoon ah mu def ko ci secret ndax lélé nga gis jigéen ño xamni ni koor duñu wor da ngay gis day mel dañ koy manifester togg ci digg ëtt bi mbaxal mi fi ah lool day day am jiixi jaaxa bu mi def ci bop xalé yi te xam ngeen ne beccu weeru koor dañ ko war a kon su fekkente ni jotna jarul ñi koy manifester yenn manifester yi mën nga lekk nag naan def lépp waaye nag ah bu boobaa na nga xam ni nga suturaal sa bopp moom mooy li nga xam ni moom moo gën. mu des ki nga xamante ni nag dafa ëmb dafa ëmb léegi nag si bëccëgu weeru coor bi mi ngi matu mu ngi matu mais deret génnagul ndox génnagul kooku su boobaa bu fekkee dafa mën a eggale koor daf koy eggale bu mënta eggale nag ma door a dog waaye nekkul ni boobaa deret mooy tax koor gi ndokk bu boobaa nekkul ni deret bi mooy tax mu ndokk. li nga xamne mom moom dogal rek moy bu deret bi genné comme ki nga xamanteni dafa ëmb di gis règle ndax lélé nga gis ño xam dañuy ëmb nga dégg ñu dañuy tank moy da nga ëmb ba paré chaque weer di ci gis règle mo xam ben fan la ñaari fan su boba bu règle bobu ñëwé da nga koy jappé comme règle do julli do wor ba mu jeex su jeexee nga daal di continuer waat li nga xamanteni ni mom moy sa wor nga continuer waat li nga xamanteni ni moy sa sa euh, sa julli comme ni nga xamanteni ni nan nga ko doon defee avant règle bi di ñëw mu des nag si jigéen bi nga xamante ne nii dafa gis règle règle bi jeex na bi ñuy waaj a julli tàkkusaan su boobaa bu sangoo ba pare du woor de mais dafay julli tusbaar bi nga xam ni moom moo paase woon julli waale tàkkusaan bi nga xamante ni moom moo jot ndax waxtu tàkkusaan ak tusbaar dañoo jege yoo dañoo xaw a laalante kon bu boobaa noonu lay doxalee li nga xamante ni moom mooy julli gi mbokk yi loolu mooy li nga xamante ni moom lañ leen indiloon tey ci suñu ñetteelu dars ci ramadanul mubarak di ñaan yalla yalla fekke lañu ko ba mu jeex ak jamm tay nak suñu darsi bi ki nga xamanteni mom lañ ko tuddé moy suñu yaay xadijatu saanaxo ak borom kërëm di papa baye ndaw yalla na leen yalla sammu te yagal seen and di leen ñaanal yàlla jàmm di ko ñaanal mboolem assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu nañ leen ko teral nañ leen ko teral coi la koy nhà ñett mbéeg la am booy dog nga béeg sooy wori nga béeg ëllëg